fi si ginnaaw ñaari cas lañ fi njëkk a am eh, ñu dékki-jékki amaat yeneen trois cas yoo xam ne ay contact lañ si ñaari cas yi ci seen famille eh, muy eh, cinq cas cinq cas yi nag benn kaa bi Touba la jóge woon ñëw fi après la am corona bi mu fi toogee lu mat ay quatorze jours beneen cas bi c'était un matelot buy liggéey ci chaloupe Dakar Gorée bi e, bi ñu arrêté chaloupe bi liggéeyeetul mu ñibbi si ñëw fii këram toog fi quelque temps après moom mu am corona bi e, xamuñu ko leen ko wàll aussi kon cas communautaire rek lañ ko mën tuddee e, kii wàll na ko ñaari nit ci famille am kii kenn ci famille am boo xoolee ñaari famille yëpp muy vingt six personnes jël nañ leen yóbbu leen euh, mettre leen en quarantaine hôtel ñi ñu jël leen yóbbu leen jam ñaajo ñi nga xam ne ñoo am feebar bi léegi nag ci biir loolu ci la ñu jóg ñun taxaw comité de crise bi ñu tegoon ñu ne nañ jot na nag ñu gën a jël ay mesures comme cas communautaire la fekk am na station bi ay dajaloo yu bari yu fay am ndax foofu Carrefour la te Kër Massar commerce bi dafa dox ak transport bi te foofu képp kuy dem ci yeneen gox yi tamit fi ngay jaar booy dem Tivaouane Peulh booy dem Malika booy dem Lac booy dem ñàgg booy dem ñàkkurab booy dem jaxaay ba yëmbal sax ñiy jaar appayage bi dañ fay jaar donc na fa nekk fu ñu sollicité rond point boobu maa ko tuddee fii mooy Sénégal en ndax fu nekk nit jóge na fa ñëw foofu donc moo tax ñu ne lépp luy activité commerce wala luy nekk activité transport bu mu fa amati nangootuñ tamit ku fay taxaw romb rek dem ndax suñ ko deful dañuy ragal kaa bi bu wàllante bu duggee foofu wër senegal gi yépp waaw population bi moom niñ koy accueillir rek mooy ñenn ñi moom danañu am tiitaange buñ ko déggee eh, ñenn ñi bon dañuy mel ni ne ñoo xam ne gëmuñu feebar bi ndax su boo gisee mesures yi ñu jël préfet jël arrêté su préfet ñëw capitaine compagnie bu nekk Rufisque bi ñëw commandant brigade bu Kër Massar mairie bi démb ba tey dañuy xeex ak nit ñi pour ñu bañ a taxaw foofu pour ñu génn fa arrêté nañ fa ay arrestation yu bari xam nga loolu tey boo gisee danga naan nit ñi est-ce que conscient nañ est que nit ñi gëm nañ ne feebar bi am na ñenn nit ñi am na ñeneen nag ñoo xam ne ñu ngi seen biir kër ñoom ragal duñ sax génn duñ dem fenn am na ay quiétude duñ dem fenn duñ nangu tamit ku dugg seen kër parce que dañu ragal feebar bi ndax xam nañ ne feebar bi day wàlle te wàlle bi nuyoo daf koy joxe bañ a soranteeg nit di jàkkaarloo moom di wax mën na jaar sa bakkan wala ci bët wala ci gémmiñ dugg ay ay dajaloo yu bari daf koy bañ nit ñi xam nañu yooyu yëpp moo tax fi mu toll nii nit ñi yooyu lañuy moytu ñun fi ñu gën a accès suñu xeex rek mooy fexe ba rond point bi nit du fa taxaw te loolu comme état bi dégg na suñu appel ba tey ndi nañ ñaari escadron gendarmerie démb ak tey ñu nekk fa démb ak tey kenn taxaw fa situation bi nii ñu ko gisee su continuer nii am nañ yaakaar ne fii ak jours nag la ñuy mën a def suñu évaluation parce que bu ñu la mettee jours 14 jours yi bu jeexee dinañ mën a wax ne Kër Massar léegi zéro cas la bu dee ne amul keneen koo xam ne. tey feebar bi wàll na ko te ñu ngi ñaan bi ñi nga xam ne wàll na leen ñooñu ñu wér ba ñibbisiwaat jàmm seen njaboot. ci loolu lañ mooy moom lañu attaqué mooy communication bi parce que feebar bi sensibilisation communication loolu daf cee am solo trop mooy xeex bu njëkk biñ mën a xeexee feebar bi bu ñu xamalee nit ñi feebar bi lan moo koy joxee ak nan lañ mën a def pour moytu ko. a nag ba pare accompagner leen parce que ñun jënd nañ ay produit produits phytosanitaires yu bëri yoo xam ne jox nañ ko jeunes yi nga xam ne muy étudiants yi muy mbër yi muy bàjjanu gox yi imam yi chef de garage yi délégué yi pour que ñoom ñëpp ñuy def sensibilisation ak communication ak accompagner eh, acteurs yooyu gën leen conscientiser yaakaar naa loolu suñ ko defee rek bu dajee rek jàngoro bi mën na fi bañ a law waaw kenn ku nekk tracé nañ la bi nga kiiyee tracé nañ la biñ la tracé contact à haut risque yi kenn ki am na ay contact à haut risque yuñ tracé ñu nekk 10 ñu jël seen prélèvement keneen ki am na ay contact à haut risque buñ ko calculer jege na 20 ñu jël seen seen seen kii au total presque muy 30 donc boo xoolee ñooñu ñëpp presque seen membre famille la parce que ñoom daanaka génnuñu donc mooy ñi ma la wax sànq rek ñi si am dem nañu muy les cinq les les vingt six ñu ngi ñu ñu denc donc noonu la noonu la noonu la noonu la demee léegi nag bon xam nga booy tracé da ngay tracé rek ñi nga xam ne moom nga xam mais mën naa am sax ñeneen am ñoo xam ne ndax contact mën nga contact ak nit doo ko xam yooyu yëpp mën na am ndax ba ngay bi ngay ñëw foo jaar est-ce que amoon nga ko walla amoo ko woon wala jour bi mu feeñee boobu nga ko am et yooyu yëpp kenn mënu ko xam mais fii ak 15 rek yu bëri dina feeñ lu bëri dinañ ko si xam. waaw décision yi moom xam nga mënuñu tëj marché yëpp mais marché bi nga xam ne mooy nekk Aïdou Mady nekk ci rond point bi même pas 500 mètres te bokk na ci liy créer nit ñu bëri ñu foofu ak garage yi nekk foofu yëpp tamatul 500 mètres ak euh, commerce yi fa nekk yëpp. di ay magasin commercial yooyu yëpp tëj nañ leen kenn du jaay mais aussi yeneen marché yi nga xam ne sax sori nañu à des heures maanaam 6 heures du matin mën nañ jaay ba quinze heures ñu wàcc ñu ngi préparer nañ tamit benn opération saupoudrage pour l' ensemble des marchés ñu mën leen pompe service d'hygiène defal nañ ñu benn devis bu un million 200 pour ñu pomper leen ñoom ak structure de de santé yëpp yi nga xam ne nekk nañu au niveau de la commune. Mm-hmm. bi côté yooyu mooy équipement marchand yëpp rek ak ak e, e, e, structure sanitaire yi fi nekk. waaw bien sûr impact bi kay il faut que ni muy toucher wee réew yi noonu lay wàccee rek ba ci base bi toucher commune yi par force moom budget yëpp ñooy bouleversé wu loolu moo tax nag feebar bi ñu war ko teel parce que suñ ko teelee daan mën na bañ a garaaw noonu mais suñ ko teelul daan mën na daaneel sax réew waxuma la commune waaw. Mm, waaw soxla nañu ay ay matuwaay ndax matuwaay yi mooy accompagnement bi ñu soxla surtout rek ci mise en œuvre de décisions yi nga xam ne état jël na ko ak ñun tamit commune bi jël nañ ko te loolu. Euh, service d'ordre yi lañ ci gën a yaakaar ak euh, appui alimentaire aide alimentaire bi nga xam ne ñi nga xam ne ay démunis lañ nekk ci commune bi ak ñi nga xam ne ay daara lañ yoo xam ne dañ leen tëj yooyu yëpp euh, dañ koy soxla. waaw renforcement structure sanitaire yi moom lañ njëkk def ndax ñun bi ñu créé communauté de crise rek li ñu njëkk def mooy dañoo génne dix millions jëndee ko ay médicaments jox ko chef de district bi. seddale ko poste de santé yi ak case yi nga xam ne ñu ngi ci biir commune bi pour que ñu mën a jël en charge bu malaat ñëwee beneen bi ci des ñu jëndaatal bi tamit ay détergent jox leen ko pour que ñuy mën a di di respecter les mesures d'hygiène ni ñi di raxasoog yooyu bu ñuy dugg ci structure yi non confinement moom xam nga waxuma commune de Kër Massar mais confinement mooy man li ma gisagum ci garab ci coronavirus mooy confinement amagul beneen garab tey jii bi mu duggee Sénégal dañu waroon confiné wu rek deux mois parce que microbe bi bu taqee fenn cinq jours kenn laalu ko kenn jëlu ko duggul ci organisme mu dee ñi ko am même buñ toogee seen biir kër génnuñu quatorze jours si ñi génn ñu faj leen kon bu ñëpp toogee seen kër microbe bi fépp fu mu taxoon ci dëkk bi dee na foofu ñi ko jot a am tamit biñ toogee seen kër 14 jours maladie bi feeñ na jël nañ leen yóbbu leen faji leen bu loolu jeexee maladie bi jeex na ci réew mi kon maladie bi benn faj faj ta ab muy confinement mais confinement partiel yi ma gis ñuy def faju ko man loolu mooy sama sama sama sama gis-gis confinement total moo koy faj. ah waaw mais ñun yoruñu décision bi parce que comme décision moom président de la république moo yor décision bi su ne confinement total euh, ñëpp def ko bu ko waxul tamit kenn du ko def pour l'instant confinement partiel la def couvre-feu la ñu ngi jàppagum ci loolu mais man ci sama gëm-gëm daal laax en tant que maire man gis naa ne bu ñu confiné woon nit ñi deux mois wala quarante jours feebar bi mën na jeex. appel bi may def population Kër Massar rek mooy population bi yëpp génn jàpp ci xeex bi ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ak ñun ñu xeex xeex bi parce que lii bàyyiwul kenn corona xamul maire xamul imam xamul taalibe xamul kenn moom mi ngi fi jóg te ku mu jàpp pour moom nit la war a jàpp nit la war a rey kon nañ boole suñ doole ñun ñëpp ñuy am benn xeex muy lan xeex ak corona mu jóge fi kenn ku nekk ci population bi wàll wa nga féete la nga mën ci xeex bi nga def ko bu dee tailleur nga mën a ñaw masque ñawal masque maye bu dee borom alal nga yàlla may la alal am na ñu néew doole seen koñ tëju bi wala liggéey bi doxatul léegi ñu ngi sonn nga jàppale leen ñu mën a toog seen biir kër loolu daal yaakaar naa suñ ko defee mën nañu gañ a xeex bi jërëjëf